maa ngi leen indil ma ko mooy supermarché ba nga xam ne da toog sa kër ñu indi la lépp ba sa biir salon. Euh, indil ma ko sa kër ngay toog sa biir salon yor sa téléphone loo commandé si indil ma ko ñu indil la ko ba sa biir kër. Euh, service bi dafa gaaw da ngay toog ñu indil la ba sa biir salon lépp loo soxla lépp loo bëgg ñu indil la ko ci matériel ci affaire lekk lépp loo bëgg rek dañ la koy indil. Euh, même boo commandé li nga xamante ne ne ko Sénégal sax dal ni koy indil ndax euh, service bi ci boppam lépp mu ngi ci biir avantage bi mooy mooy njëg bi li lay jaay dafa yomb te dafa am qualité doo ko gis fenn ci indil ma ko rek la nekk ci téléphone bi ngay commandé ñu indil la ko ba sa biir kër rek ñu indil la ko indil ma ko daal ak a noppale wóor efficace te gaaw doo ci sonn yow bëggal